man de démb sax dégg man maa yeewu rek seetaan uh, télé yi ak rajo yi dégguñu ñu ne yëngu-yëngu amoon na fi uh, sëfoor seek ak yooyu ndax toogaay bu uh, metti beeg ak yooyu ko indi woon daal waaw woy waaye nag ñoom yàq gi daal man ànduma si waaw en tant que nga xam ne man sën laa taalibe laa yàq ji moom ànduma si ab taalibe amoo droit di yàqak ak euh, tasaare taal ak yooyu man moom euh, taal gi ak yàq gi ànduma si. yëf yi bi muy xew booba man wàcc naa man laa sama néeg laa tëdd yàgg ma dégg coow li nit ñi jóg yuuxoo ak wax ji bari lool ma jóg yéeg génnuma sax ci kaw terrasse bi laa taxaw ne sut ma dégg jumaa ji sone dégg ci ndigalu sëñ bi mu ne na ñëpp dem toog ci kër yi far ñun am nañ tawfeex jotuñoo génn suñu kër bi loolu amee dégg ñu ni sëñ bi nañ kenn génn na ñëpp toog seen kër bu fas yéenee jëfe ndigal loolu nun toog suñ kër ñu xëyee tam génn dégg ñu naan ñi dañoo mobilisé woon génn ci kaw tali bi di taali pono di yàq waaye man su doon sama xalaatu bopp duñ taal duñ toj duñ yàq ndax noo ko moom alal Sëñ Tuubaa te ñun taal wi Sëñ Tuubaa lañ bagage yi ñun bu yàqoo noo koy wutiwaat di ko fi indi yàqu ñu alali kenn suñu alal bu ñu yàqee moom la ñu yàq. manifestation yi dañ ko fi tere mais dafa am loo xam tamit boo fa àggee tamit dafay xaw a ëpp parce que man mii di waxee yow nii man maa ngi depuis trois mois man la 5 mars laa fi ñëw te la 5 mars presque mën naa la daanaka deux jours moo tere man fi trois mois dakaar laa nekk te xam ne image toi nga nekk Dakar yor fa tamit ay location jàmbur doon téye taxi tëj fa ñaw jàmbur ñëw fii depuis trois mois. jusqu'à présent mënoo fexe ba génn dëkk bi dem loolu tamit métti na te du man dong man may dund lool et cetera et cetera ñeneen ak ñeneen kon manifestation yi man bokkuma ci gaa mais ñi koy def it man gëm naa ne man dañoo am métti comme man. dëkk bi nag daa am borom nun ñi ci ëpp mel ne man hmm, daa neex rek nu ñëw waaye boromam da ko ñaan liggéey ko ba mu sotti colet mu woonu nun ñëpp nu ñëw pour jariñu bu nu ko fooyee amuñu dara daal moom te fi mu toll nii sax añ ak reer sax fi nii amatuñ ko daal nga xam ni euh, dëkk bi daal instant yi moom yaa ngi dégg mett na lool. li ma naqari man mooy yëkkati gi nga xam ni maanaam yëkkati nañ ko sëñ bi guddi bi mu jóg li ma gën a métti ci ma ci ci yëf yi loolu moom ci la bokk.